yourself. Don't forget about yourself. Please stay safe yourself. Hello YouTube. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Barikal. Dikatina. So, hmm. dama nekk ci break from YouTube but suñ community bi kenn mënu see am break foo xam yuy xewati yoo xam ne def naa ci vidéo waaye geneen fànn gi laa war a def vidéo tey so and then hopefully ma continuer suma break bi <laughs> suma yaram yi mu ngi tane torop mu ngi gën a tane mun naa laa wax ne la daanaka wét naa léegi kereng léegi moom lu si def bëreetu but ba tey maa ngi war a recover suma strain bi nu ñuy waxee strain si xolof sax suma kàttan gi you know ak jos so mu nge ñëw ndànk-ndànk waaye yëpp ñëwagut fulli but yeah tane naa torop dënn bi moom yëgatuma ko sax daa daanaka nase tane na boobu métti wu doon xam tam bana yaram wi jos yaram wu métti wi yëpp wuu daanaka dem na fereng alhamdulilah so tey na ma ñëw def vidéo and hopefully yéen a ngi fine hopefully ne feebar bi nekkul di leen wala hopefully ne ku ko xam nga wér ak jàmm ak ñaan naa ne yàlla bu leen ko xam wala jos yàlla bu mu leen sonal si ñàkk liggéey geeg ñàkk xaalis geeg wala ngeen ne si kër gi te jubóoxu leen ak ki ngeen neexal yàlla loolu yëpp bu mu leen dal benn bu si xami tamit yàlla na ko yàlla saafara ngeen jéem a def ndànk su da ngeen dikk ni si kër gi te nit ki nekku di leen may jàmm ngeen jéem a def ndànk rek ngeen mayante jàmm yéen ñaar yëpp you lu si bëri nit nga dëkkal su la may jàmm yéen ñi dee nekk yow tamit you add to the problem waaye doo koy yëg su fekkee nga dëkk ko xam ne dafa mun a xuloo mun a defante mun a gaaw a mer you know su fekkee ne yow tamit da nga mel noonu du jàmm du xam waaye yenn soo wàññee ba nga wax ak borom si njekk ak teraanga te boroom su nango dëgg dina seetlu ne tamit dafa wara a faj boppam defar boppam su ko defee yéen ñëpp ngeen naxante rek you know àdduna kenn mutut bot soo dëkkee nit te du ngeen xam jàmm loolu moo raw coronavirus su ko defee nag danga da ngeen di nekk di kulo su ko defee na yow sa coronavirus time bi dina nekk lu gën a jafe soo xamul feebar bi sax yaa ngi am beneen feebar bu raw feebar bi soo try leen su ngeen dëkkee ngeen xam jàmm ngeen cause aduna is all about jàmm xam na ni ñoo xam ne nag dañ naqari affaire kenn mun ta dëkk ñoom kenn mun a xam ak ñoom jàmm but hmm, that's another video but try rek nga make soo ne ku ngay dëkkal ngeen try yeen ñaar yépp ngeen work ngeen jéem a am jàmm ok so tey dama bëgg wax si mbiri góor jigéen vidéo you góor jigéen vidéo yu go on nit ñi di si wax góor jigéen ñi nga xam ne ñi nga xaritoo woon ak first lady bi and then léegi gaa yi am problème si loolu laa bëgg a ñëw def si topic ok because góor jigéen issue bi nii loo xam ne la def naa si topic in the past couple of time loo xam ne la lu naqadee wax la nag parce que dafa ragaloo you know soo koy wax sax ngay ragal parce que ngay tiit number one dangay xalaat ne he mën naa xam yalla traité ko suma doom wala suma dooy mbokk mën naa génn ëllëg nekk goo jigéen number two ngay xalaat ne du suma affaire borom affaire am la ak yàlla su dee ma ko ak nit ba fekki ko comme ni yàlla wax serne yi nga xam yëpp nga fekk ko borom sax su borom di baxala su ko yàlla di baxala su ko yàlla dul baxal affaire am la ak yàlla soo si waree wax asa julli tamit danga war a ñëw waare rek waaye waroo xool turi borom di wax turi borom so because of loolu noonu yëpp soo ko xamee asa nit koo xam ne danga dee xàtte dëgg yow sa bopp daf dee tax daf dee rag ah, naqadi pour nga wax si also dangay wax ne man musuma fekk benn góor jigéen seppi góor si kawam ba gis ko ba xut yi ko yàlla wax ba seppi ko so daf dee tax tamit doo si bugg a wax parce que yàlla daf ne fekk fekkoo nit nekk nit nekk si kawam ba ba ba nit ki nga seppi ko si kawam ak ay serne mënoo koo xooxee loolu ok so loolu yëpp daf dee tax daf dee pour nga wax si plus ñu ngi nekk si dëkki tubaab yi nga xam ne tubaab yi ñoom loolu rek lañ gëm ñoom ñu si bëri du ñoom ñëpp nag ne xam ne ñoom ñoo sax bugguñ ko ñoo ko gën a bañ nit ku ñuul yeeg naar yeeg yeneen xeet yi ko bañ waaye ñoom ñu si tamit xànduñ si rek waaye ñoom ñu si bëri si xànd dëgg duñ ko caaxaane so loolu yëpp dafay tax doo si mun a wax waaye loo xam ne la dafa am solo pour ñu wax si waaye dañ war a xam nuñ si waxee ñu wax si ak dëggu wax si honnête honnête wax parce que loo xam ne la li tax ñu wax see wax mooy because su fekkee ne yaa ngi yar doom yoo xam ne buggoon ñu mag nekk ko fu mu jaar nga waxal leen lu tax ba waruñ koo nekk dëgg la doom ji bu dee yaa ngi ko yar si jullit dina xam ne yàlla bëggut ko loolu moom jullit bu ne xam nga ko boo dofee sax ñu wut jullit sax xam ne ne yàlla bëggut waaye nag lu yàlla bëggut tañ di ko dafa bëri dañ dee ñaan yàlla mu baxal ñu soo léegi soo noppee rek ne yàlla buggul ko rek nga noppi xale bi for exemple yàlla bi rek yenn yi su fekkee xale bi gëmul yàlla trop loolu du ko ko teree def bàyyi foos nga wax ko yeneen yi nga xam ne it moo tax ba waru koo def te nag fànn goog laa ñëwee like I said man duma dee wax lu si bëri naan yàlla nii yàlla nii lu tax mooy xaw ma yàlla lu bëri damay jàng rek comme everybody else kuy jàng mbiri yàlla bu ma nekkee ustaas ba baaxutoon daf ñu daan dóor di ñu sonal soo lu ma fa jàngoon man sama mag yi bëriwul daara soo saar yu saar yu ma xam si alxuraan bi yenn yenn saar yi ma xam dama ko dee mën a wax nii waaye soo ko bindee duma ko mën a rir xaw ma sax lan la soo waaye maa ngi continuer di jàng saka taay yi dama dee gën jàng ak a déglu waare yi jos dama si dee nekk ay hours di déglu di jël note but when come to mbiri góor jigéen nii wala jigéen góor wala whatever you call it loo xam ne la dafa naqadi lay ka seet pour ñu wax si si suñ culture bi waaye loo xam ne la dafa xam solo pour ñu wax si because of suñ doom yi ak suñ doom yi rakk suñ doom yi mag suñ rakk yeeg suñ jarbaat yeeg jos àdduna si rek nekku ne sax dañ siy wax pour koo xam ne par exemple ku taxaw sax la góor jigéen laa sa yoon néew si boppam ak yàlla la kooku taxul ñuy wax waaye just because society matter la rek dafa mel ni comme every society matter rek society problème la so société problème na su ñëwee fu mu jaar ñu wax sa ko problème bu réyee nii soo koy lëmb-lëmbalit xëllëg si bit bu sa doom ñëwee ne la góor jigéen laa doo ko dootoo ko lëm-lëmbalit te du la neex sa naw gi dana dog suma marché dee seen naw gi dana dog dana xam xaat attaque soo kon nag is ma wax si léegi so like def naa si couple of video in the past waaye tey dama ko bugg a wax in another way loo xam ne musuma koo waxee nii again dafay nekk another honest deep from my heart video so koo xam ne ni jël gis nga vidéo bi nag wala nit ñi jël nañ ko wan la koo xam nga nit ñi duñ wane lu baax waaye lu mu la ñuy jël forward ko nit su ko defee ñu ne diw yoo lay wax yoo lay gaaru xaale koo xam ne nit ñi wan nañ la vidéo bi wala nga gis vidéo bi nag def vidéo di saaga wala di mer ah I hope ne doo ko def parce que man du ma xëyu kenn ku ma saaga man wax naa already ne benn yoon la ma ni saaga ma fayee ko te rëcc naa ko te dootuma saagaati nit ba ma dee si Facebook bi waat naa ko ba pare waaye lii like I said man def naa si ay vidéo couple of time xam na fi nit kuñ doon ñaawal fii ah ba ma génn si def ay vidéo bañ xas ma si moo waraloon suma xas buñ ma xas jaru wax tur yéen ñu may seetaan lu bëri xam ngeen ko di ko ñaawal di ko xooxee tur tur bii nii bam ñaawal mi jur loo xam ne fa dawoon yaram torop nit ñu bëri génn si di wax man si ñu génn si di wax ba tax ñu saaga saagaxoon man ndey si la bokk si la booba rek lañ ma mos a saaga ndey si Facebook ñaaraatul ba tey so léegi nag te borom bokkuma ak moom xaw ma ko du ñuy koolante nekk xarit dara Facebook su rek laa ko xamee suma Facebook xarit rek la xoon time boobu waaye su fekkee ne ah, ni ñi jóg nañ di ko ñaawal di ko ñaawal ba muy wax naan fa bugg a rey boppam wala nangam fu mu jaar rek nga jóg wax si su fekkoon ne nekkut jullit sax su fekkoon ne nekkut gambien sax bu war nga see wax sax ba mu joxee gambien ni yow te gambien dafa tuuti ñun ñëpp mun nañoo bokk dañ ko xamantewul rek. so doomu aadama njaay ñëpp benn lañ kenn gënu kenn nit ki koo munti xooxee tur tur boo ko mun munti xooxee boo ko fekkoon mu di ko def sax taxul nga gën ko yàlla daf dee def nit ñi bind leen kenn ku nekk ak lam la may ak kenn ku nekk ak fan ko toll xam na nit ñoo xam ne sax dañ dee def for exemple mooy yàlla boo xam ne duñ ko nëbbu wala nit ñi xamee leen ko fekk yàlla mu ngi def dara lu baax si ñoom loo xam ne wala ëllëg danañ ñëw wecceeku mel noo xam ne ñooy gën a jege yàlla sax yow so d'après doomu adama njaay kenn gënul kenn doo si mata ku xam ku ñàkk ku ñu xooxee tur bi ak ku ñu xooxee tur bële ku ñu xooxee dëmb ku ñu xooxee caga ku ñu xooxee lii yëpp kenn gënul kenn jóg sa say so dama bëgg a wax si mbiri lii because mbiri lii lu tax ma bëgg see wax nekkul just the fact ne the the góor jigéen in general déedéet it's because suñ issue bi suñ suñ community bi lu ñu war a understand si mbiri góor jigéen loolu moo tax ma ñëw pour wax si koo xam ne góor jigéen nga yow sa bopp yow ak yàlla rek yaa xam ne góor jigéen nga man xaw ma kenn kuy góor jigéen sooy boo nga solu solu góor jigéen sooy boo nga fecc góor jigéen sooy nga def yëfi góor jigéen nit ñi dinañ foog ne nuroo nga góor jigéen waaye man du ma taxaw ne la yow góor jigéen nga jóg sa saay su fekkee maa ngi ànd ak suma mayn ku ma ko mas a wax ba ma la ko doon wax wéeru ma woon xaanduma woon ak suma xel mi su ma xaandee suma xel mi waruma la ko wax ndax seppi ma góor sa kaw te loolu la yàlla wax te dee so waaye tey dama bëgg a explain like I said suñ community bi ak góor jigéen ñun nuñ nuñ nuñ nuñ war a luñ war a understand si góor jigéen parce que ñun ñu ngi si bëri luñ war a xam si góor jigéen xamuñ ko parce que kenn du koy wax wala ku koy wax du koy waxee comme nu ma koy waxee si ni kenn ku ne nu ngay waxee ak sa xel ak nu ngay gisee problème ak sa morom dafa xuute so ñun suñ community bi ak góor jigéen number one luñ war a xam mooy lay kay seet kenn ko xam ne jigéen nga yow ak sa bopp ak yàlla rek yéen a xam ne góor jigéen ngeen góor jigéen is like every order lu bon loo xam ne yàlla fa ko xaaye every other thing dañ xuute nag yi gën a réyante bàkkaar yële lële yële waaye is bàkkaar is bàkkaar isn't it mooy yàlla is mooy yàlla isn't it soo kenn ku nekk bu la neexee nga def ko secret kenn du ko yëg soo kenn ku xam sa bopp ne góor jigéen nga yaa ko yëg yaa xam sorry yaa ko sa bopp laa bëgg waaye lu ma bëgg a wax tey mooy foog naa lii waxoon naa ko si vidéo bu ma doon wax mbiri góor jigéen long time ago koo xam ne góor jigéen nga si Gambia ak Sénégal xaw ma beneen culture de waaye foog naa ne lii Sénégal Afrique yëpp la sax ak even yeneen dëkk yi sax ne India sax ak yeneen dëkk yi dañ dee toroxal góor jigéen yi leen xaaye even like I tubaab yi fii ñoom ñu si bëri bëgguñ góor jigéen yi waxantuma laa dëkki Afrika wala dëkki dëkki traditionnel dëkk yoo xam ne dañ gëm yi fi cosaan yi fi traditionnel daal bëgguñ ko te loolu noonu xaw ma kañ lay génn waaye du léegi sadly I'm sorry but that's how it is life is not fair so koo xam ne yow développe nga sa góor jigéen habit wala xam nga xam nga yaa ngi bëgg a góor jigéen habit lu ma lay wax si tey mooy ne meekal soone nga xam thick skin thick skin mooy nga xam der bu dëgër boo xam ne yow lu la nit ñi wax danga ko mën a jël loolu mooy number one lu ma lay digal si number two meekal soo ne yow na nga pare ne nit ñi dinañ la beddi te bum la métti xam nga lu tax ma di leen digal lii man mënuma la ne teree nekk góor jigéen su ngeen bëggee nekk góor jigéen just like keneen kuy dem njaaloo wala keneen kuy fen wala keneen kuy tappale wala keneen kuy naan sàngara wala keneen kuy def lu yàlla xaaye yëpp mënuma koo xaaye loolu ñenn ñi dañuy nekk waxkati yàlla sax boo xam ne imaam la sax boobu su ko neexee mu may yàlla waaye su ma sañoon kay bu leen si bokk ndax ngeen mën a dund free happy life nit ñi accept leen jël leen ngeen dund ak nit ñi happiness parce que nit ñi suñ leen beddee du ngeen kontaan ba dina tukki tubaab yi doo góor jigéen fii sax te seen mbokk yi di leen beddi seen yeneen tubaab yi di leen beddi du ñuy kontaan ba àddina tukki waxuma la ak yow nit ku ñuul waxuma la ak yow mi jógee Gambia ak Sénégal ñun Gambia ak Sénégal ni ñu yàlla bindee mooy dañ buggante dañ miin doomu aadama njaay dañ mun a waxtaan mun a kaf mun a ree gis ngeen suma bëri wax gi du man kenn dafa nekk ne man si si vidéo yi laa koy def ngeen di ko gis xam na ñoo xam ne buñ toogee seen néeg tey liñ mën si xaqataay ak waxtaan danga ne anooda ami joo mu ngi nii noonu lañu ñu yàlla bindee yàlla def ñu bind ñu niti Gambia Sénégal dañ bugg nit mun a toog naan ataaya mun a toog lekk ci benn bool mun a waxtaan mun a kaf mun a ree yéen nii ngay jënd mbubb sax mu rafet sa morom ne la lii laaj naa ko nga summi ko may ko léegi soo melee noonu niti nit ñi nga ba pare nit ñi di la beddi ngay sonn daf lay depress bitim réew boo fi dëkkee it loo mën a mën a tëju danga nga nit ñi nit ñi niit la danga soxla nit ñi nit ñi soxla la that's the reality saka su fekkee yaa ngi dëkk yoo kenn xamoo jëkkër xamoo jabar soo xamee jëkkër wala nga xam jabar sax te jubóowu leen nekku leen benn dangay soxla xarit boo xam a ngi juboo nekk benn waxantuma laa boo xamul jëkkër xamoo jabar nga toog yow kenn si néeg even man mi toog fii ak suma doom yi sax ba léegi dama dee soxla nit dama xam suma xarit boo xam ne dañ dee ànd lifin bi xew nii koobaay bi xew nii moo tax waaye dañ dee dem xam café yenn yi xànd dem xam kafe toog waxtaan xànd dem shopping nit wala koolante nii waxtaan yenn yi nit dangay soxla nit si sa life su ma mag Gambia su may wax ak moom fii naa wax for so long ba bi jeex duma si doyal nit dangay soxla nit sa àdduna noonu la yàlla bindee sa ka nit ñi nga jógee gi nga nit nit ñi nga jógee soo leen buggee daw doo xam jàmm te doo xam happiness loo pretend pretend pretend ne kontaan nga doo mun a parce que nit ñi nga jógee dafa mel ni suppu kanja bi nga xam domodaa ji nga xam ko dafa mel ni man nga waroon maa xaaye suppu kanja xaaye ma cere xaaye ma buy xaaye ma wonjo xaaye ma yi ma bugg yépp léegi ne ma ami léegi sa àddunaa ngi nii nag xaalis baa ngi nii néeg yu rafet yaa ngi nii nangam yaa ngi nii waaye lekk yu neex yi nga bugg yi nga xam ba nga juddoo tey yëpp dootoo ko alam du ma Isra nga bàyyi ma ma nekk ci néeg ma daa lekk-lekk yu ma xam si lay gën a happy parce que lekk yi nga xam dañ dee def dara sa yaram wi loo xam ne lekk bu nga bugg dëgg ak lekk bu nga xam dëgg fii ba neex muy def sa yaram ah dara du ko def noonu is as nit ñu nga xam nit ñu nga xam wala nit ñu nga bokkal wala nit ñu nga xam famille bi nga bokk société bi nga bokk hmm? bi ñuy def sa jëmm ji benn xalal du ko jënd benn bànneex du ko jënd boo ko waree beddi wala ñoom ñu bedd la doo happy mukk loo pretend pretend doo happy xam naa lii dund naa ko ay xat nekku na nit ñi dañ ma beddi hot beddi waaye because maa ngi nekk very forward ah, di bañ a jël nonsense ngir lu ma dund hmm? nit ñi bari dañ ñii dañ ma ragaloon ñii di ma moytu you know so ne mosuma koo xam too much waaye gis naa ko dund naa ko parce que dama nekkoon soo foo wat ba nga xam ne dama dee xot nit ñi sax te su ma yoon néew si yenn yi wala su su ma yoon nee sax may prétendre su ma yoon néew si su tëddee guddi di géwti sax may prétendre su ma yoon néew si boo de réalité ñun doomu aadama njaay saa wuñ prétendre ne suñ yoon néew si dara suñ tëddee guddi ñun ñoo dee ñàkk a mun a nelaw ngir suñ yoonang si mhm. yàlla nu ñu bindee daf ñu jox xol jox ñu filim soo tëddee guddi sa yaram dafay yëg li nga def ta waroo koo def sa xel mi dafay yëg li ngay dudd te waroo koo dund sakantuma nag soo beddee yàlla gi nga soo beddee yàlla sakantuma su fekkee dooy julli regularly comme nu ma daan def at yi yëpp loolu das even worse nga su fekkee ne doo julli regularly hmm, ngay daw yàlla yàlla moo ko wax si alxuraan sax man duuma waarekat de waaye loolu yàlla moo ko wax si alxuraan déglu naa ko si waarekat yu mag yi yàlla mu ne soo xamul suma time dama bedde danaa la def doo xam sa time yow sa bopp te loolu dëgg la seetlu naa ko si man dalee ko ci man ki nga soo xamu taymi yàlla lépp lu la yàlla wax ne moom nga war a def sa saaduna nga di ko beddi di ko daw di break rule si yàlla yëpp di disrespect yàlla da next minute sa bopp ngay disrespect fu mu jaar nga disrespect sa bopp fu mu jaar nga def lu ñu lay tëjee kaso mbala nga def loo xam ne danga gàcceel sa bopp mbala nga def loo xam ne nit ñi dinañ la beddi nit ñi nga nga xam gàcce mbala jos ngay dund naqat fu mu jaar rek li tax li ngay def noonu gannaaw boo beddee yàlla totali kenn mënta jaamu yàlla fuuli waaye at least nga try waaye gannaaw boo beddee yàlla totali fu mu jaar rek leneen li nga focus loolu dana la beddi loolu dana la rusloo comme ni ngay naqadale yàlla fu mu jaar rek loolu naqadal la that's the reality loolu moom man xam naa ko so loolu noonu si luy waral naqat si la bokk góor jigéen or not gis nga ñun xam na yenn yuñ dee def ci Facebook bi hmm? su xeboo ñuy fecc di woy suba ba ngoon naan happiness stress free hori nu mu tuddati woykat boobu noonu nu mu tudd ki ne Sénégal um, Vivian ah no stress no stress yu bari xam ñu ñun ñu ñun ñu ngi koy wax stress dëgg ñu ko tax di wax xanaa man mu jom bridge bi rek man moom xat yi yëpp time boo naa fecc suma vidéo yi mosu ma dégg may play no stress ak yu def yëf moo ko pile kon xanaa benn yoon la wala ñaar de parce que man lenn mooy sama problème man suma lay waxuma ne du may fen de fen naa si àdduna waaye bëriwut dama mel ni xale bu ndaw suma àdduna dafa soo easy man lu ma bugg a dundu laa dee dund moo tax ma mun a jël décision bi pour change suma àdduna switch ko xam nga lu tax du ne yëpp laay change switch ko de parce que xam na caractère yu bëri ñu ngi woon si man waaye dafa làqu woon rek mënuma koo practice ngir nu ma waaye soo gisee ma pare pour génnee loolu ba pare ñëw di leen ko wax ngeen di ko xamit hmm? because bu may commencé vidéo yi dama ne woon damay nekk very honest loolu laa promission bopp number one number two man lu ma bugg a dund lu ma xam ne lii moo jaadu pour ma dund ko lii moo jaadu ma def ko dama ko dee def du ma faale ku ma ree du ma faale ku ma xas loolu moo ma séef moo ma dimbale suma àdduna te sant naa si yàlla mu def ma façon ni kooku ñun ñu si bëri ñu ngi dund yenn yi stress moo ñu koy defloo te stress bi xaduna moo ñu ko teg te xaduna bi ñun ci suñ bopp ñoo alaa xaduna teg ñu ko xarit yi ak nit ñi ñuy puus rek moo ñu koy defloo nothing else parce que soo tolloo si benn time man tollu naa benn time hmm? xaw ma benn best friend xaw ma benn xarit bu may mun a wooyee best friend xam nga lan laa xamoon nit ñi nga xam ne ida dañ may use suma mag moom always suma best friend la moom ko kay moom c'est always number one ak suma xarit bi ma bu ma xam ne ba amay tokki ne suma xarit bi itamit xam naa suma xarit la waaye at the end xamoo fu mu toll si yow nit ki naa nekk sa xarit ay xat te fekk xamoo fu mu toll si yow deep down see boobu di ko deflante sax waaye man dama daan toog di film ne xaw ma best friend boobu even though suma mag nekk suma best friend the whole time depuis childhood waaye dama dee xam ne nit ñu may wër nii may sosalaate ñoo sax nit ñu may wër si internet bi nii si Facebook bi boobu hmm? daf ma dee leer ne duma si mën a wooyee kenn best friend kenn buggu see jegeem as man proper wala di wax sax ne ami mooy suma best friend because suma yëfi dof yi ma daan def fa suñu vidéo yi ma daan def even though musuma def yenn vidéo yoo xam ne dañ too in too much insane boo def naa insane vidéo yéen ñu ma yàgg seetaan gis ngeen ko fecci comédie vidéo ridiculous mbala yenn ñëw attaque diw yi lu tax nga wax nangam lu tax nga def nangam comme ça isu bu xew ni ni konoon tee ma faral ci benn faatu bi par exemple naan lu tax faatu bële wax nangam wala nangam ngee loolu yëpp is insane videos so because yaa ngee def noonu dafay tax nit ñi di la daw xarit yi nga xam ne nag ñoo ñoo lay def ñoo nag ñoo nekk ñi di la wax ne bugguma leen a xooyee tur sax parce que léegi maa ngi try pour di moo di soo moo bugguma nekk di wooy ni ñuy tur di leen xooxee whatever naafeq or hypocrite whatever comme niñ ko dee defee pure Gambian way of talking <laughs> the reality is na ñun ñëpp naafeq leen at time parce que liñ wax ne mooy naafeq dafa yomb trop nga nekk naafeq yaa koy yaa ko du yëg rek wala yaa ko du bàyyi xel foog ne yow yaa gën ñëw ok so jarul xawee kenn naafeq and stuff jokes aside léegi nit ñu la dee kool for di la wan yow toj nga fi wala yow yaa nekk dëgg de yow yaa nekk raay de ñii waruñu a def lii ñii waruñu wax lii nga su ko defee di dem nit ñooñu rek nga dee déglu te nit ñooñu liñ lay digal ida xam nañ ne baaxut seen yoon néew si bi ko xam nañ ne ñoom duñ yow duñ ñoom ñoo koy def o yëguñ ko sax xëj na ñu ngi foog ne ñu ngi lay woon buggeel you know because ñu ngi la ragal ne li ngay def baaxut parce que nit ñi nga soo nekkee am na benn position booy tollu si àdduna noo yal nañ yàlla dimbale rek xam na bonni position booy toll si àdduna man mi toll woon naa soo def demee ba def loo xam ne waroo koo def it could be video or anything ku la wax ne la lii waroo koo def nga koy ba nga koy daw wala nga saaga ko ndey xooxee ko naa fekk xooxee ko dafa foog ne moom mu gën xooxee ko nangam nangam but one thing lu ma bëgg a wax mooy lan mooy mbugeel est-ce que mbugeel yen man ngeen xam nit ku leen bugg ba du leen wax dëgg est-ce que nit ku la bugg ba du la wax dëgg kooku bugg est-ce que yow doom boo ko juree tey nga gis doom ji di dund loo xam ne wóor na ne lii du dëgg du yoon ci wàllu yàlla wala ci wàllu Facebook wala ci wàllu whatever hmm? di def loo xam ne wóor na ne lii sa doom ji waru koo def par exemple nit ñi di ko xas di ko yeb te nit ñi koy xas di ko yeb gënuñ ko est-ce que boo tegee doom jooju ne ko bàyyi li nga def yow nga bañ sa doom ji est-ce que ñun ñi ñëpp kenn ku nekk sa ndee ak sa baay bi ngay def lu bon lim la teg xas la pour nga ba ko ba even dóor la sax est-ce que sa ndey sa baay dañ la bañ. su keneen woon di la rey tey du sa ndey sa baay la ñuy njëkk rey ba lañ laa rey duñ la protect danañ la protect ba ñoom lañuy njëkk rey ba lañ laa rey duñ la seetaan koo rey la soo léegi lu tax nag ñooñ soo defee lu bon ñu teg la xas la because dañ la bugg bugguñ nga def ko bugguñ nga nekk def sa bopp comme wala kaara si askan wi nit ñi di la xas di la ree nit ñooñ gënuñ la xadduna bi kenn gënu fi kenn ku fi nit ñi gën rek yow la neex soo ñàkkee ba xamoo dara sax kenn gënul la ku do doomu aadama njaay te xam respect si doomu aadama njaay xam respect boppam ku ne dana la respect yaa ngi nekk jëmmi doomu aadama njaay ni moom des na si yow nag ni ngay xandulee sa jëmm ji ni ngay def ni ngay doxalee sooy wan ni ñi ne man duxuma dara lu ma neex wax lu ma neex def lu ma neex dund nit dañ la jël ne duxoo dara sooy won nit ñi ne gënul leen ma nit laa nit sëkk laa kuy nekk nit may sa baay nit ñi dinañ la jëlee noonu life is so easy let's just be real man xam na nit ñu bari ñu ma yeb ngir suma vidéo yi ma daan def te duñ ma masatee respect dana xaat torop pour ñu respect ma su xeboo ami jóob ceeñ ba nekkati ninki nanka xooli euh, ninki nanka xam nga lu tax parce que xas nañ ba gis suma ridiculous comedy vidéo yi ma daan def di fecc yenn fecc yeeka def yenn make yi sax di tontu ay ay nit ñi nga xam ne ñu ngi daan xas nit ñi wala def luñ warta def si si société bi wala wax dara dara xew comme ça isu xew nii right now ma jóg dugg si def vidéo di ko def insanely di attaque nit ki loolu rek tax nañu mere ma te duñu mosatee respect su boo sax ñu dégg ne par exemple Amie Jobe léegi dee dafa ceeñ ni muy waxee dafa wuute wala nangam nangam ne wax ne Amie Jobe boobu soo nit ki yow soo kasee wàccee sa bopp par exemple ba nit ñi yab la da set dafay xaat pour nit ñi respectaat la ba daf dee mën a possible waaye su fekkee da nga am nga taxaw nga ne man mii nangam bii nii moom laay dund comme neex ak comme naqadi kenn moomut ma su ma yoon néew si xamal ne sa yoon néew si fine waaye megsool ne bul dee nekk di mer di defante di xuloo ne lu tax nit ñi bugguñ la fonkuñ la respect guñ la kon sa yoonang si te kon ngay kontaan loo nit ñi la bañ sax ñu di la xool di ree naan very good gisoo ko mu ngi mer ne lu tax nit ñi fonkuñ ko su ko buggee na weccee ku koy fonk lu ne danañ la ko wax toog di ree koo xam ne bugg ngaa dund doo si matal loo bugg dund si àdduna bii nii yaa moom sa bopp yow la ak sa yàlla waaye meg suul ne sooy dund loo xam ne société nanguwu ko pareel nga xam yaram wu dëgër thick skin parce que danga sonn sooy tubaab nga ak sooy indian nga ak sooy nit ku nga foo mënti danga sonn this is the reality sorry doomu aadama njaay people are so cruel xam naa ne nit ñi dañ war bàyyi nit ñi kuy waare nga waare wax lu la neex wax mbiri yàlla ne yàlla day fa xaraamal lii yàlla fa xaraamal lii nangam ifindoo ñu ne yàlla mu ne su gisee soo gisee sa morom bi jullit def lu mu wax danga ko war wax ku koy wax dafa war a ñëw si ron kon kool la wax ak yow njëkk ak teraanga instead of ñëw di def vidéo di xoo sa tur for exemple waaye doomu adama njaay lu ko neex lay de doomu adama njaay dafa kurul moo tax ñuy rayanteeka jàmbuxanteeka def yi ñuy def yépp doomu adama njaay dafa kurul that's the reality doomu Adama Njaay dafa soxor te bon si suñ deret bi la ne ñun ñu ci bëri that's the reality te du ñuy doxal dëgg moo tax ñuy nëbb lu bon li ñuy def ba pare suñ gisee keneen kuy def lu bon par exemple ñu ñëw di ko attaque di ko fitnaa koo xam ne nag yow wóor na la ne bëgg nga société bi respect la def la nit nga mun a xam happy mind ah ba pare nga bugg rek xam jàmm si àdduna bi ak société bi fexeel nga dund dund boo xam ne société bi dinañ ko jël. soo cuusee ne da ngay dund dund boo xam ne société bi duñ ko jël doo mën a forcer société bi ne ñu jël la by force ñaar yooyu du mën a xam comme ni ngay forcer société bi ne leen man may dund lii neex na xadi noonu nga war a toogee yow tamit nag waaye doo leen forcer pour ñu jël la are you guys getting me or not bi suma doom suma doom jaa ngi ni toog di ma dégg xëlal ki si su fekkoon ne moom moo cuus ne dafa bugg a góor jigéen wala jigéen góor wala whatever na xam ne société bi duñ ko jël te man mënuma si dara man sax duma ko jël man mi ko jig du wut mbiri yàlla sax de man sama bokk maa bëggut mbiri jigéen góor rek du wut ne ma leen a bañ ba bi leen beddi wala di leen di de déedéet man bañuma kenn mënuma bañ kenn waaye duma ko bëgg a dund duma bëgg suma doom dundu ko te duma bëgg suma mag dund ko te duma bëgg suma rakk dund ko te duma bëgg suma jëkkër dund ko tey te tey te tey tey tey tey tey hmm? suma nit ku may waxal ni par exemple su demoon ba yàlla def mu takk ma ñuy sey toog mu jékki-jékki ne ma jigéen góor laa wala góor jigéen laa léegi sorry góor jigéen dem nekk ak góor est-ce dana ma neex tey tey tey suma doom ju góor ji may yar nii su demoon ba mag war a xam doom takk xam jabar toog ma jël sëtam suma sët ba di ko foxee mu ne ma de fi ne suma moroomi góor lay demal est-ce que loolu dana ma neex tubaab yi lay kaseet fu ma dëkk nii Scotland tubaab yi ñoo ko gën a bañ xeet yi fi ne ndax fii tubaab a fi ëpp anyway tubaab bi Scotland yi ak a ñoo bañ góor jigéen ñoom ñu ci bëri fa ñuy maslaa si biti rek ndig ndig boo waxee ñu mere la ñuy maslaa si biti eh, waaye si biir ne suma doom ji nekk primary school xaw ma high school sax nga xam ne gune gu ndaw la fukki ak ñett la am moromam ñu bëri fa ñuy xas ñeneen gune jigéen ñi fay wax ne wala gune góor ñi fay wax jigéen ñi fañ leen di bedd di leen mere ci school ba di ko xas di leen xas ba suma doom ji nga xam ne sax si jullit la jóge fay toog di seetaan moom so it's something loo xam ne Yahya Jammeh ngeen a ñëw pour fa ñëw pour jeexal àdduna nit ñi fa ñëw pour wàññi société bi Yahya jame comme tubaab yi ñuy wax nii ne France xaw ma lan dañ bëgg a wàññi àdduna si because góor ñi suñu dem ak góor ñi jigéen ñi dem ak góor ñi jigéen ñi ñun ñëpp suñ ko defoon su ko suñ dee suñ bàyyi defoon duñ fi ne ba pare it's just something that I don't know it's not also healthy scientists yi sax seet nañ ko ñu ne healthy wut baaxut ci wér gu yaram jigéen walla góor sa nanga sa nangam bu ne si gannaaw su ko nit di use baaxut daf dee reppi daf dee joxe feebar daf dee indi ay problème yu bëri dana senn dana am problème yu bari so boo ko seetloo yàlla lu mu ko xaayee lu baax la ma pardon mi yàlla lu mu ne boo ko seetloo lu baax la si ñun so koo xam ne lay kay seet bugg nga koo dund ah yow yaa xam sa bopp yow ak yàlla ne moom nga bëgg a dund dund ko waaye nag bul mer bu la nit ñi beddee ndax nit ñi danañ la beddi sadly it's like that comme ni ma nit ñi di daan beddee xat yi yëpp ngir suma jomba bridge vidéo yi ma daan def nit ñi duñ la xóolu nit ñi dinañ la beddi nit ñi dinañ rus sax pour wax ne yow ak ñoom yéen a bokk wa sorry uh, yéen a nekk xarit danañ ko rus a wax xanaa ñu nekk ak yow xarit si ron secret waaye nit ñu xam maanaa ñi ñu xam daraja ñi ñu xam jom ñi ñu xam ñu nga xam ne mënuñoo understand lii bëgguñ ko ñëpp danañ la beddi si su si ndaje that's the reality sorry duma la wax leneen lu du dëgg fii this is the reality koo xam ne nag bu buggoo a dund façon yii jaru ngay nekk ak nit ki xarit ba si kanam nga di ko beddi di ko naqadal bàyyi ko depuis day one loolu laa bëgg wax si nit ñi dee nekk ak yéen xarit façon nit ñi nit ñi day nekk ak ñoom xarit nit koo xam ne yaa ngi bëgg a nekk ak façon nit ñi xarit meg soo ne sa xol bi nga ko jëlee meg ne bu ko àdduna bu yëgee sax doo rus su fekkee ne bu ko àdduna bi yëgee da ngay rus wala yow daal bëggoo koo def bul nekk ak ñoom xarit di leen minal sa bopp ba si kanam nga beddi leen bàyyi leen génnal si ñoom di leen seetaan ñu def lu leen neex dund lu leen neex doo mën a ñëw seen àdduna ba pare dem ba nga xam ne nit ñi war leen a xam nga nga daw beddi leen daf dee métti si xol neexut a muñ waaye yéen yéen ñi cuus pour dund lii lay kay seet fu mu jaar iida ngeen wecceeku oo ngeen muñ métit bi parce que métit dana xam te du mës a génn parce que société bi ngeen koy defee even bu doon tubaab la sax dangeen xam ñu leen ci bañ waxuma laa société nit waxuma laa société Gambia Sénégal société Gambia ak Sénégal ñooy loo xam ne wen comme tu yàlla ji hmm? welcome to yàlla ji lu leen neex rek la ñuy tànn jël loolu leen naqadi ñu sànni ko ñoom ñu si bëri mbiri góor jigéen bi is number one luñ gën a bañ waaye xam ñaari jabar di leen gënaat mbala even jàpp doom joo xam ne sa doomi jille la mbala sa doom la wala sa sa sa koy jàngal iskul la wala nangam nga di ko noggatu mbala doomi jàmbur joo xam ne mu ngi xem ni sa moromi doom nga di ko noggatu di ko may xaalis di ko tëddoo ah mbala jos di bañ ni ñi di leen liggéey ak a jos tappale saka ñuy liggéey si nguur gi di tappale di sàcc million gi di ñeeka lu leen neex def hmm? yëfi soxot yu ne fa la samp baax yu leen yàlla xaaye yëpp waaye wees comme tu bi nga xam ne yàlla yi xaaye na boobu boobu noonu rek lañ si gën a bañ mbala suñ koy defit boo kenn du ko yëg soo ko defee si biti nii ñu ŋàññi la so koo xam ne bëggoo ñu ŋàññi la wala bugg nga nit ñi di la di la jël di la ceer yi def la you know wane la ne yow yaay seen xarit wala wala whatever bul dee nekk di def di behave di manière di def yenn yow xam ne ku la gis dana la mun a xooyee góor jigéen lu si des rek mooy ñu seppi góor gi sa kaw waaye yeneen yi si des yëpp yaa ngi koy def mbala yenn yi sax nga wax nit ñi sax boog ne nangam laa suma yoon néew si maa tey soo melee noonu bul wax ne nit ñi dañ la jël bàyyi foofu ñu bugg la soo gisee ma def vidéo bii duut jos pour wax ji de waaye pour suñ doom yi ñuy yar sax ñu dégg ko kontaan naa si torop ne suma doom jaa ngi toog dégg li may wax ñun suñ société bi maa ngi koy repeat duñ musa nangu góor jigéen xaw ma ban xat lay doo waaye du léegi du léegi te du ñun rek Afrique yëpp la ak even Asia ak yeneen dëkk yi ifin tubaab yi lay kay seet ñu ngi koy xare pour xam seen ray pour nit ñi nangu ko nguur gi bu ko nangoo it nit ñi ci biir nanguñ ko ñu ci bëri nanguñ ko tricoté bi yëpp xam nga ñetti tubaab ñoo dogoog seen mbokk yi fii bi kon góor jigéen li wala jigéen góor wala dogoog seen xarit yi wala jos liggéeykaay ni ñi di leen beddi wala jos nit ñi di leen ñaawal di leen beddi ifin di leen wuree si mbeddi so it's something loo xam ne dafa dafa you know doomu adama njaay bu yàlla indi adama ak xawa def jigéen ak góor yow nga ñëw change loolu ne góor ak góor laay def jigéen ak jigéen laay def it's it's it's normal for human beings to just react to it it's a nature doomu adama njaay yu bëri ñoo si react doo seen mata yàlla or so lii rek laa bëgg a wax si mbir mii nii koo xam ne bëgg nga nit ñi jël la defal loo xam ne nit ñi dinañ la respect kenn gënut la nit ñi lay yeb di la xas gënuñ la yow yaa leen ko may pour ñu yab la xas la comme ça man ni ma ko doon mayee nit ñi rek boo ñëwee di def yenn vidéo yi Facebook doo si mat a jigéen nga au góor boo ñëwee di def yenn wax yeeg yenn manière yi manière yi nit ñi dañ la seetaan da nga xam junniy seetaan parce que nit ñi dañ xéemu dañ waaru dañ jommi di la seetaan di la ree ñenn ñi di seetaan di def junniy like yi di def toog fa one hour di def junniy like yi di la wan li ngay def baax na waaye ñi koy def iida dañ koy def ngir ñàkk xam wala dañ koy def ngir ñoo tay di la puus si sa naqar parce que xam nañ ne kontaanoo ndig li ngay dund noonu ku kontaan du ko dund gi nga kontaan bàjjo bi kenn mënu koo prétend billahi wallahi taala kontaan kenn mënu koo prétend man sax time bu ma daan def suma yenn vidéo yéen sax da ngeen di xam da ngeen su ngeen ne man su ma dama dee xam ne su nu ma ñàkk kontaanee mu ngi wanewu si vidéo yi man suma whole life dama am happy side boo xam ne dama ko dee xeexee naqat waaye ba tey time boobu xeexu ma woon suma naqat bi properly génnutoon parce que maa ngi merexoon suñ culture ba tey merexoon yàlla ji sax suba boobu subhanallah ngir ne lu tax nit nit di maye xale si diine islaam loolu moo tax man ma ma war a sëy bu ma nekkee xale yépp laa merexoon du ma nangoo julli du ma nangoo su ifin doo may def noonu ba pare nag di déglu Quran bi gis nga nit ki li nga bokk boo ko meree doo am jàmm gis nga ñu ñu si bëri dañuy mere yàlla ji mere Quran bi mere culture bi réer si àdduna ba suñ moromi Gambien wala suñ moromi Sénégalais ah bu toogee di wax mbir yàlla ñu mere ko man loo def naa ko bëriwut nag waaye def naa ko naan ña naa feexas su waxee naa feexas you know di def fi yàlla xam nga lu tax nga dee mere borom parce que yow yaa ngi ñee borom bugg a nekk fu borom nekk hmm? xamoo nooy def ba xegg fa also yaa ngi ruus yaa ngi guilty léegi su fekkee ne yaa ngi ñee borom ngir ne yaa ngi bugga nekk bu borom nekk te xamoo noo de ba xegg fa wala yaa ngi rus te gilti te tiit si sa xëllëg ne xam nga ne xëllëg bi dana am te xamoo kañ la ne xam nga ne yàlla su la nee nii nii war a def soo buggee xegg suma àjjana bi nga sànni ko wóor na la ne yaa ngi question sa bopp ndax àjjana danga si dem la doo si dem te xamoo na àllaaxira boo demee nu muy def nu muy mel xam nga kenn ñëwagul kenn ñëwagul àddina bàjjo bi ku dem du ñëwaat loo ko gëmadi gëmadi wala loo loo réer réer wala loo confuse confuse ngay tëdd guddi di di naan hmm, hmm. soo évindoo soo julliwut wala defoo lu la yàlla wax ko rek li nekkoo di so topp yoonu yàlla danga dee toog di déglu alxuraan bi wala ngay toog di jéem a julli yenn yi wala staf wala yenn ngay julli sax juróomi waxtu juróomi waxtu yëpp waaye ba tey yaa ngi tiit di wan he man bàkkaaru mag bu may def nii doesn't matter what bàkkaar it is it could njaaloo it could si sàcc nga ne it could si anything lu bon loo man de noonu laa mel man man saa wu may def dara loo xam ne wóor na ma ne lii yàlla bugg ko du du ma tëddee guddi du may laa bindoo lu ma munti def rek loo xam ne wóor na ma lii war ma ko def su ma tëddee guddi du may nelaw moo tax dama dee xeex ma génn si sant naa yàlla yàlla bindee ma noonu te wóor na ma ne du man kenn rek wóor na ma ne doomu adama njaay yu yu bëri boog noonu lañ mel so instead of ngay toog di guilty di toog di mer di toog di wuti happiness happiness kenn mënu ko wuti gis nga happiness by bi benn vidéo mënul la koo jox benn xarit mënul la koo jox benn xaalis mënul la koo jox yow rek yaa ko mën a jox sa bopp inside pure mooy fi nga jógee culture bi nga jógee te di ko daw su dee si diine nga jógee itam diine ji nga jógee di ko daw fu mu jaar rek nga baal ko jël ko jàng ko bu baax understand lu tax li nga nga di ko daw li tax loolu noonu nit ñi di ko def wala li tax loolu noonu ne ci ñi di ko def understand deep mënumaa wax yëpp si vidéo buy tey because dafay gën a gudd kon understand sa diggante sa diine bi lu tax nga war koo jël seriously understand nooy mun a fa ah, baxale sa bopp fàtte lu nga dund nga commencé jël start from zero di di di dem su yàggee rek yëpp dina génn nga xam pure happiness fii waaye happiness boo ko yaakaaree ci ay vidéo ay xarita ak ay yëreeg ay lii ak ay laa doo ko mas a xam nu konoon million yi duñ rey seen bopp commit suicide rey rey seen bopp xaw ma na yéen may understand happiness loo xam ne la fii nga koy xamee within but that's another video so nañ leen xam ne daw suñ culture bi jógee daw suñ nit ñi jógee daw suñ diine bi ah du ñu mës a indil happiness I know this I'm telling fu mu ñu jël ko practice ko soo ko defut fuuli sax trial yenn mooy yàlla yu mag yi nga munti nekk yëpp nga try ba ko muy njaaloo muy eni mooy yàlla bu mag boo xam ne soo tëddee guddi di génn di guilty soo jàpp di julli sax di xooy sa bopp naa fekk te xam ne soo paree julli ma cëppeelu defaat mooy yàlla bu mag bii doo si mata wati si nga jéem ko ba mu nga mun a am pure happiness nga mun a xam ne sa diggante yàlla mu ngi clean tey tey sa ruux bu buñ ko jëli woon tey xam nga yaakaar jëm loolu rek si ngay mën a nelaw waaye fekk yaa ngi nelaw di xalaat sa ruux gi buñ ko jëlee tey xamoo fa nga jëm doo ma sa happy am telling you this xam naa lii su ma ko waxee gëm ma nañ leen xam ne nit ñi ñuy bégal nit ñi ñuy jéem a bégal si si àdduna si fii du ñëpp ñoo ñu mën a bégal te te du ñëpp ñoo ko miin from seen xol bi soo jotee ak nit am gën a séeris balaa may dem soo jotee ak nit ngeen nekkoon xarit ngeen ngeen bàyyi xante nga wax yu bari yoo yuñ yoo xamoon sa digganteeg moom dana naqari trop pour nga xamante xarit danga ko weer danga yàq derem waaye dana naqari trop gis nga man wax naa leen fii vidéo bu ma def bu yàggul nii barki démb mbiri foos la di bu ma ko mitee ak bu ma koolee xoon fii foos lidi bu ma koole woon fii waxuma leen lu ma foos lidi bi wax yëpp foos lidi bi jëwalul ma kenn nag moom ay yëpp jëwal ma nit ñi yan staf noonu mbiri politique mbala mbiri nit foog naa loolu benn yoon rek lañ ko waxoon mooy ma fa demee something like that waaye bu ma koole sax foog naa waxuñu loolu I can't remember waaye na leen lu ma waxoon loo xam ne su ma neexoon ma toog fii kekkeek wax ko loo xam ne moom personal life am la personal lu defoon la daf ma ko doon wax di ma di ma digal rek ba xegsi fi wax loolu waaye man sama bopp sax wax naa bu ma ko waxee wax jooj naa ko suma xel mi ne uu mbaa kii du nangam nangam for exemple waaye loolu noonu after ma switch ma ne ah mun naa xam du loolu mun naa xam daf ko def rek ngir lu tax mu def ko whatever loolu ma explain suma ma bopp comme lu mu wax ne loolu taxoon mu def ko waaye su ma leen ko waxoon fii mënoon naa koo use fii comme ça yéen ñi koy defal vidéo di ko tànc naa nangam lu tax nga def ko yow baaxoon di nga wax nangam di nga def nangam. mënoon naa ko use pour xaste wax leen ko su ko defee yéen ñi ko xéet yëpp ngeen use ko pour xaste di ko xas yokk ko ci xas yi ngeen koy xas xam nga tax defuma ko su ma ko defee sama bopp laa ko def dana naqari trop pour ma am xarit ku wét dootu nekkati suma xarit ifin lu ma wax noonu ne foofu la di bi kool na ma sax bañ wax waan na waan waaye nangam nangam nangam yi know explain vidéo bu passé nii even though wax naa ne first lady bi jëwluñ ma kenn you know jëwu jëwu jëwuñ kenn nangam nangam rek la ma advice te loolu that's the reality bu ma koolee apart from lu ma la wax lu ma wax ne loolu la wax nii te loolu noonu is not important pour ma wax ko waaye loo xam ne nit mën na koo use against her for example but it's not a bad thing like for example like I don't as bad thing ko hate na koo see as bad thing waaye just because naa ne call na ma noonu rek for example loolu rek dana tax ba ba ku bëggoon nekk suma xarit tey dafay xamu leen loolu parce que dafay wax ne kii su ma jeexalee moom dafay toog wax lu ma daan xam ak moom te man xam naa fi ay xarit yoo xam ne in the def naa fi ay vidéo in the te du ma ko bàyyi naa continuer di ko def wax naa xarit yu bon yuñ ma dugal si dëkk bi ma fi xarit yu bon yuñ ma dugal wax naa ko si vidéo tudd benn turu nit nag te xarit yi ma fi xamoon du benn du ñaar soo kenn xamul raay ne diw kii di wax wala diw la kii di wax xam naa fi yenn yenn xarit over the years moo fi dëkkee also wax naa fi xarit luñ ma def sàcc suma banque details yi dem hubbeeku ay ay ay ay ay ay ba ay ay carte ay store carte ak yu kenn xamut ba yàq suma crédit système bi yépp te loolu soo gisee wax ko pour yéen ñi nga xam ne yéen a ngi war a ñëw si dëkk bi wala yéen a ngi fi ñëw xees wala yéen a ngi fi dëkk sax yàgg fi waaye da ngeen xam ne xarit boo xam dana leen def loolu pour ngeen moytu si xarit yu xees yi du xarit yëpp ñoo dee ñëw pour ñëw waxtaan ñenn ñi dañuy ñëw pour sàcc sa detail sàcc sa banque detail sàcc sa date of suñ xamee ne local bu mën nga ne am yoo xamoo dara time bu maa ngi ñëw xees ñu dem xubbi si ay banque card xubbi si ay store card la def xubbi si ay credit card or whatever daal si ay store card jëlee ko ay bagage yëpp te duñ ko fay nga sa credit history bi yàqu waaw xam nga loolu ba tey waxuma tut dama ko wax pour xeete rek waaye loolu rek dana tax ba ñu bëri danay ragal nekk suma xarit par exemple danay wax ne kii suma nekkee xaritam ëllëg si bit dafay dem luñ jotee wala su nangam xewee mu toog vidéo wax ko you see it because ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk suma xarit parce que ki nga xam ne moo ko def xam na boppam ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk suma xarit ñi nga xam ne yëg nañ lii kenn saka kenn ki ki nga xam ne yëg na lii xam na ki may wax su gisee vidéo bi waaye xam nga par exemple ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekkoon suma xarit kenn ku ku dégg vidéo du xam ndax kii lay wax wala kële kan moo ko def te kenn du ma mës kool ne ma kan nga doon wax ba ma ne ko diw la kenn musul maa koo laaj ma ko anyway waaye ku ma ko laajee du ma la ko wax bañ robbi la mukk dama ko def pour xeete rek di ko dafa métti trop pour nga dund yenn yi ba pare noppi nit ñi continuer di ko dund soo soo nekkee ni xarit ba ngeen jeexal hmm? lii dama koy wax pour ñun ñëpp lum métti métti lum la def lum rëy rëy waxuma sax mu jos tuutil la because yow yaa ngi mel nii yaa ngi mel ne le whatever mu tuutil la di la daw su fekkee daf la bittiree bittiree bu rëy sax laa wax jàmbu la jàmbu bu mooy hmm? moytul ni ngay waxee parce que xam na nooy waxee doo xamati xarit yow wala xarit boo am doo xam ñoo am fayda yëpp ay di la daw wala buñ neexee yow doo leen la jël properly parce que dañ duñ la hóolu te yi ñuy def nii daf dee tax nit ñi di bugg a ñëw si ñun jege ñu su fekkee sa fekkee yaa ngi def lu am fayda di leen wax lu am fayda you know da da da dee bugg a jege nga nekk seen xarit ñu xam la. jàng si yow waaye su fekkee ñu ngi la gis ngay wax ne diw nangam nangam lu ngeen jotee lu ngeen lu ngeen a wax secret yëpp nga wax ko foog ne moom ngay yàqal yow sa bopp ngay ne never may mbiri yàlla bi sax parce que yàlla jóg sa sayt wax na ne soo defee loolu bàkkaari boppam la boot like I said maa maa gën a si yàlla bi si jàng laa nekk everyday but yàlla or not kooku xam dana la dal parce que kooku noonu toogut wax yow sa tur wax li nga ko def yëpp wala li nga wax yëpp war defu ko. te nit ki nag lu ma lay wax mooy saa woo xamee xarit boo xam ne da ngeen di jëwante di waxante ay mbiri nit lu si bëri kon yow itamit contribute nga si man de like I said first lady bi call na ma wan na wa waaye wax waxuma xoon nag moom mbiri nit parce que tudduma nit moom it tuddut nit waaw su fekkee nag yéen a ngi wax waxi nit jarul sax ngay bood di wax xam nga lu tax parce que kenn xamut yow yaa commencé wax ji wala moom moo commencé wax ji wala lu tax yow ngay entertain wax jooju noonu ñun ñëpp xam na ne soo nekkee ni xarit mu kool la ngeen di jëwantu yéen yéen ñëpp a di si dee bokk let's just be ñëpp su di bokkul kenn ki du nekk di paraare yi wax moom rek te yow bokkoo si ko si wax ji waaye as we grow older àdduna ba bu yàlla sàq yaa ngi gën a mag. dangay wecc rek nga mesoo li nga dundoon daaw wala li nga dundoon daaw jéeg wala li nga dundoon even ren gi yëpp sax su la su la wóoree ne lii baaxul rafetul nga jéem koo wecc get better xam na xarit yoo xam ne mënuñ waxtaan lu dul rek yow yaa leen di su fekkee bu góor mel noonu nga wecc leen ñun ñëpp jëw nañ ñun ñëpp nit ku nit rek lañ doomu aadama njaay ñëppay jëw saka nit ku ñuul saka african saka ñun nga xam yaa Sénégal toog di ataaya di jëw rek lañ mun ñu ci bëri ku ci mag doo ko mën a wecc daf dee mun a possible waaye du dee nekk benn benn bés rek waaye mun nga koo ceey su loolu yaa sa xarit bi su loolu ngeen jàng nu ngeen di waxee yëfi live yëfi stock fu jaar yenn jëw yi dugg si yenn jëw yi ñàkk fayda yi fu jaar mu dugg si kenn mënu koo bañ parce que ñu ne soo waxee ni rafet na sax gannaawam sax loolu jëw la kon kay jëw yomb na waaye nag yenn jëw yi soxot yi jëw yi evil yi nga jéem koo wàññi su loolu su loolu su yi noonu su yàggee danga ko dee miin so lii rek laa bëggoon a wax koo xam ne yaa ngi bëgg a dund dund boo xam ne nit ñi dinañ la respect nit ñi dinañ la jël hmm? yow yaa koy jox nit ñi nit ñi loo leen jaare la ñuy jënd soo leen jaayee mbuuru ñu jënd mbuuru nga jaay leen jënd nitati nga jaay leen ñu jënd géej gi doo mën ñëw di jaay nit ñi day for exemple la pare nga ne nit ñi nañ jënd sukkar ak lem wala nañ jënd tàndarma it doesn't work yow yaa leen di wan ne man nit ko xam fayda man nit ko xam ne laa kenn gënut ma dama fonk te respect suma jëmm ji nga won leen ko waaye su fekkee danga fonk te respect sa jëmm ji sa nekk nit ko xam fayda sa xol bi waaye si biti yaa ngi wane ne yow duhoo dara yow yow yow lu la neex def yow bàjjong boo xam ne nga faa dina faale woo ko ràncang boo xam ne nga faale woo dara noonu lañ lay jàppee te duñ bugg duñ la bugg a wane duñ la bugg a xam doo si miin ne doo nekku ne dañ la gën dañ lay beddi rek comme ni ma ni ñi doon def bi ma nekkee woon noonu that's the reality doo si miin dañ la gën gënuñ la dañ la ñemewul rek dañ understand lu la jot lu tax ngay def lii te ñu bëri duñ la ko mën a wax buñ la ko waxee nga meer nangam nangam lay kase xam na fooy toll sa àdduna ku la wax dëgg nga mere ko koo xam ne toll nga foo xam ne ku la wax dëgg nga mere ko jéem a la faj sa bopp. parce que gi nga soo neexee di mere ñëpp di xeex su yàggee nit ñi duñ la faaleeti mën nañ la seetaan rek pour di la entertain comme ni ma nit ñi doon defaat yi yëpp di la seetaan di la entertain nit ñi nga xam ne dañ loos comme yow duñ la mën a dimbale léegi dañuy nekk di la seen ay like ay comments si li ngay def pour ngay gën a continuer hmm? waaye the xam nañ ne yow da nga need help moo tax ku ne nga xulóor ku ne nga saaga di def yëfi dof yi sa vidéo yi di di go crazy xam nañ ko man sax xam nañ ko time moo ko daan def wóor na ma ne xam nañ ko ne man sax ma dee toog toog seetaan ma vidéo yi after ma ne laa illa that's the reality even though maa doon use as a comedy you can see that this is not just a comedy this woman is dying with pain ñun ñu bëri yenn vidéo yu ñuy def it's not because dañ mere diw wala dañ mere diw wala suñ community bi lañ bëgg a fix wala nangam it's because dañ xamee pain dañ xamee naqat boo xam ne dañ ko war a faj te naqat bi defante ak saaga du ko mos a faj feek delluwuñ ci yàlla ji ñuy daw dellu ci suñ culture bi ñuy daw practice ko duñ mus a happy parce que culture bu ak yàlla ji is part of us mooy nuñ nekk depuis buñ juddoo si loolu lañu suñ ndey yëmb jut ñu si moo ne suñ deret ji nga judd ñu tudd laay ilaha illallah sa nopp bi dafa foor soo koy daw doo ma sa kontaan si àddina juróom-ñaar xamul fooy nekk ku la yóbboon sa White House bële nga dëkk fa sa Amérique sa doo laa bëgg a wax tey si isu bii nii man maa ngay dem and hopefully su ngeen gisee vidéo bi yéen ñu si mer wala yéen ñi si understand lu ma wax yépp di ngeen dal ngeen def seen bopp nit ngeen xam ne man si life journey laa nekk bu xees boo xam ne dama bëgg a practice li ma bëggoon a dund xat yëpp te mun koo dund ngir suñ culture naqar bi loolu laay xeex te dama fas yéene ne loo xam ne nii métti na te lu na sax te dund naa ko waaye dana xee community bi rek damay ñëw wax ko comme ça bu ma xibbee vidéo yi ba xees ba tey nu ma koy defee rek waaye dama koy defee another way round parce que yeneen yi ma ko daan nu ma daan defee bu njëkk bi parce maa ngi amee woon naqati culture bi loolu noonu moo génn léegi so moo tax léegi su ngeen may gis may def vidéo dafay nekk different waaye ba tey di same amee bi la so ngeen am guddee te ya nañ leen jos wecci parce que suñu wecciw nit ñi dinañ ñu wooyee dof dinañ ñu wooyee xalaku dinañ ñu wooyee lu tur bu ne te fekk nii ñooy gënuñu ñu naqat ak réer ak xaduna rek moo ñu dal koo xam ne yaa ngi dund naqat ak réer ak xaduna trayal nga bàyyi ko man suma bos lu ko waraloon mooy dama mas dañ ma sëy dama dama dañ ma mayoon bu ma doxee gune gu ndaw moo def naqar bu suma xol bi xat yi yépp te maye boobu noonu xet dafa dafa add so many different things si man dafa add different say and add different things wax naa leen ko jarul suñ culture bi ku ne xam na ko duma leen koy wax rek pour ngeen déglu ko déedéet pour su ngeen gisee gune guñ war a maye Afrique ko xam ne seen mbokk la ngeen xaaye ko xaaye ko xaaye ko parce que gune gi du mun a séef boppam tey gune la waaye su magee ba xem ni man mbala mu xem ni ni ma xemoon bu ba di ko gën a xéet hmm? dina ko indil affect ñu ñu si bëri dañ traumatise suñ culture bi ko sox luñ dund ñii child marriage ñii abuse ñii rape ñii door yu bëri ñii ñii yu bëri toroxal bu bëri parce que ñu si xam kër gu correct bëriwul ñun african saka ñun Gambia Sénégal ay Afrique yëpp la ak even Asia yeneen dëkk yi even bitim réew fi sax xam na xale yoo xam ne loolu moo leen traumatise xamuñ kër gu correct buñ magee nit ki nga magee ak lu nga magee dafa important trop sa si sa health si sa mind ak nit ku nga war a nekk ëllëg soo waaye waruñoo lose hope jaruñuy lose hope rek continuer rek di ràncang di def suñ bopp comme nit ñun ñooy xaji nit ñi nit ñi dañuy yàpp ñuy def lu ñu neex ngir naqat déedéet dañuy claim suñ bopp ñu xam ne nit ñi gënuñu kenn gënu kenn ñu nekk nit njaay koo xam ne ñoom ñi ñu doon ree yëpp di ñu xas yëpp nañ toog sax ba bugg mel ni ñun loolu rek mooy solution bi te loolu rek mooy ñu def happiness also ñu jege yàlla ñu xam ne tey tey tey suñ deexoon duñ tiit di xalaat ne fu ñuy dem waaye suñ nexee di beddi yàlla lu ñu xaay yëpp ñu di ko def up down di jump up down di tëb soo tëddee guddi da nga tiit da nga guilty da nga mer da nga rus te doo mun a happy te nit ñi danañ la beddi danañ la xas danañ la yeb te doo mun a happy te àdduna jarul loolu àdduna life is too sot te na dafa neex trop yow yaa war a xalaat nu koy dundee rek soo buggee expérience neexaay bi ok loolu rek laa bëggoon a wax ngeen am guddee jërë ngeen jëf si vidéo yi ngeen di seetaan laygal vidéo bi soo ko laygee comment below ngeen waxal ma what you think lan ngeen ngeen dee def su ngeen waree change seen xaduna naka ngeen dee change seen xaduna ak naka ngeen dee def pour moytu xaduna ak jos moytu xarit wala moytu xaduna moytu xarit yoo xam ne ñoo lay dugal si yeneen yi ak jos moytu xaduna lan ngeen si def ak naka ngeen xalaatee mbiri góor jigéen si suñ community bi you no naka ngeen ko gisee naka ngeen ko xalaatee ngeen comment below bu kenn comment di saaga nag bu kenn comment di wax naan nangam nangam no kenn du fi yàlla ken xamul àllaaxira luy xew ñun ñëpp dañuy ñaan rek yàlla wecc ci ñu ñuy gën a jege yàlla ba bu set àllaaxira ñu ñëpp ñu ànd dugg àjjana loolu rek la soo nañ ko jël ndànk-ndànk easily yëpp dina baax incha allah so ngeen am guddee jërëjëf ci vidéo yi ngeen di seetaan ah, dinaa leen gis beneen yoo incha allah ok bye take <laughs>